wa rahmatullahi wa barakatuhu alxaaji Mbengue Diop ak Mame Ndokh TV euh, mbokki jullit yi mbokki àddina mbokki réew mépp mbokki soppey borom bonekaar bi baba kër si mii tëdd ci suñu ginnaaw tabaarakallaahu boroom sakkara yàlla bi borom manto bu jekk bi boroom xam-xam ba ki liggéeyal Cheikh Seydil Hadji Malick nga xam lu fi mam Maodo def benn moom def na ko téeméer tabaarakallaahu tey nag li tax ñu ñëw fii dañoo bëgg sunu mbokk yi nekk ci àll bi nga xam seen xol yëpp a ngi ci Tiwaawan bu Seydil Hadji Malick seen xol yëpp a ngi ci Tiwaawan seen xel yi nag nekk ci Serigne Babacar Sy borom bonekaane bi ñu ñëw tey doon leen wan xabrom bi doon leen wan euh, jumaam ju tedd yi ngir ngeen toog fi ngeen toog di fas seen yéene ci ziyaar ko tabaarakallaahu foo ay toll ci àddina boo ko ziyaaree yàlla defal la ci sutura ziyaar bi egsi ci moom mm-hmm. ci ci zawiya sëñ kër si bi la dëkk mënuñu fee ñëw ba dem te waxtaanu ñoo moom laaj ko lan mooy mbiru sëriñ kër Sy ndax xam naan yàgg na moom góor gi maa ngi lay ziar. asalaamaaleykum alaaji ñu lay di la delloo ziar yooyu itam ah, di wax ni kontaan nañ ci lii nga laaj ndax nag sëñ Babacar Sy bokk nañ ci mag ñi fi des tey yoo xamee gis nañu ko mu wax mu dugg suñu nopp boobu maa ngi am sept ans ci saalam bi mm-hmm. sama waajur indi ma fi ma war a dugg école ma ànd ak Baye Mamaloo ak Baye Amadou Sénégal mm-hmm. ak samay wayjur ñu ñëw toog mu woo ma teg ma ci kawam mm-hmm. dindi ñaari kayiti ñaar fukk may ma ko ñu mm-hmm. ma nag daa liggéey ba retraité waaye man maa lay njëkk a fay boobu ba léegi nag ah bi mu demee génn addina sëñ Abdoul Aziz Al Amine la ñu àndaloon li ñuy wax it lépp ci moom lañ ko jëlee ak li ñu suñu wayjur doon wax parce que suñu wayjur nee na mooy ci bi mu génnee àddina mu ne ma ca Louga bu sëñ kër dëkkee ca kër sa nasu actuel gii booba xat la woon peru xat. nee na mooy Riandre la bon. déedéet ndax ah Louga Louga. Louga nee na mu jékki-jékki rek génn rek daal ni xat xatal na ma. allahu akbar. nee na bi ngoon daataan jot. kër compagnie yi nekkoon foofu ci tubaab yi yëpp. taalibe yi yem nañ fa jënd fa ay seng ñëw bardaas kër gi ba mu ba daj. mu ne ma keroog booba nag ba bu muy dugg suuf musuma tàggoog moom am na lu ma ci nettali waaye li nga xam ne moom lañ ciy retenir rek mooy Serigne Babacar Sy nit ñi dañ koy tuddoo waaye daf ci am lu tuuti loo xam ne lii il faut nit ñi xam ko dafa bokkul ci ñi ñu war a xulool ñi war a xulool ñi war a xulool c'est-à-dire ñu nga dégg dara muy wax nga daal di dem sa takk sa tuba yi takk sa mbubb ni da ngay xeex Samba man na kanamam man gannaawam. moom Seydi Aboubacar moom Seydi Aboubacar si. gis nga dafa wax ni sëñ Abdou moo ko nettali ma ne ko waaw man dama dégg ñu ni sëñ Babacar nee na soo ma joxee sa lépp Babacar dana téel sa lépp boo ma joxee sa genn wàll Babacar genn wàll lay téel la ca des yoonam nekku ci soo ko joxul dara mu maandu ci say mbir mun moom waaw waaye loolo nit ñi dañu xamul fa muy yegg mun ma gis nga boo ko joxee sa lépp mooy nga yëg ni moom ci boppam fa mu toll nga toll fa boo nekkee sa biir néeg yow kenn xool gauche xool droite gisoo kenn nga seet ni croisé nga sa buntu kenn du la fa fekk nga am ay jëfandiku yoo xam ne da nga naan doomu ko jëfandiku ndax sëñ Babacar rek may xool nee na maanaam nga xaweeku sa biir néeg da nga koy rus sax ndax xam ne sëñ Babacar rek may xool. allahu akbar sëñ wax lii ci nee na bu boobaa nag xam na ni yow jox nga ko boppam. daal di ma ciy wax nag benn tegtal ni ma am na benn waay bu ñuy wax Daouda Diaw soldaar la. ba ndey san demoon na guerre baag yëpp nee na daf ko gis benn bis ni ko waaw lu tax nga sopp sëñ Babacar mu ni ko ah eh, tàngal la mu la mu saf ka ko ma ko xam waxul sax ba muy dem soldaar ak yooyu yëpp parce que day gudd waaye bi mu demee soldat dafa am benn bis mu ñëw ndakaaru yaay ji ni ko yee yow day sëñ Babacar ñoo na mu ngi Richard nee na ma yàkkamti rek teg sama bagage rek da wuti Richard nee na ba mu ñëwee ba ci Malick si fekk ñu julli timis nee na mu daal di kabar ànd ak ñoom xamul nag ñaari rakka sax la defati xamul ñett xamul leneen muy xiin mu ne mu mën a ah daal di sëlma rek ni ah xaaral ma ñoo dem ci sëñ Babacar lu muy dem nag bay bëgg a yegg mi ngi woo nag benn paquet dégg lu baax alaj mhm. nee na mi ngi woon ak paquet cigarette ci poche am parce que soldat la mhm. fàtte na nee na mu ñëw ba jubli ceer ci kër gi nee na mu jël benn ëkk def ko fa nee na ñëw góor gi nuyu ko saafoonteeg moom laaj ko kañ li ñëw yooyu yëpp nu geer nu kër ga def ak soldaar saak yooyu nangam nangam nee na mu ni ko waxtaan ba mu demee ba mu ñaanal ko ni ko kañ ngay delloo yooyu mu ngi ko ah xam naa daal permission bu gàtt la woon nee na bu muy génn mu ne ah, xam naa ni day di ñëw di julli door teewlu ba naan ñaari laa def wala ñett xam ngeen ni julliwu leen allahu akbar nee na mu mu ci xolam xam ne moom lay wax nee na waaye mu ne ko Daouda léeg-léeg daf ko wax rek sànni waaye lii daf ko ni Daouda maa mu ne ko soo génnee loolu nga def ci suufu ëkk ga mu yaa mu ne ko bul koy jëfandikoo taalibe du ko def. la ilaha foofu neexul. sëñ Abdou nee na Daouda Diaw nee na jaarul sax ci ëkk daf ko teggi dem nee na bi mu demee ñu nekk ci bateau yi di yéeg ak a wàcc nee na ñu dem ci côte atlantique yi dem ba booru Canada sedd bi jàpp leen ñu def benn escale. nee na fi ñuy def escale gars yi génn di jënd xelam dem ci cigarette palmal américaine yu rafet yooyu ak seen allumettes yi nee na ma jënd ci ay goros jënd sama yëpp pour rek man koo faje sedd bi nee na bi ma ñëwee ma dugg ci sama cabine nee na jaaxaan nag ci sama mat laa nag nee na daal di jël benn cigarette jël allumette bu rafet nee na dama ni tayi kos rek nee na xamul fu góor gi duggee ci biir cabine bi rek tëgg ko pes allahu akbar lu ko terewuma la ko nee na sama yaram bi sama kawaru bopp sama digg tànk yi di lox nee na ma jóg rek ubbi armoire bi jël cigarette yeeg almet ya ma ko jëndaloon dindi hublot bi rek ñu ko pëy ci biir géej nee tëdd nag di lox di lox di lox di lox nee na keroog waxuma sax cigarette ma di ko jënd waaye ku ma gisee nga koy tuux sax damay na jaar neneen xam nga loolu mooy pour wane la mandarga wu ni Serigne Babacar boo koy tuddoo da nga war foo toll foo tollu nga xam ni exactement Serigne Babacar a ngi jàkkaarloo bi ci des mooy toog na fii ci salam bii ay mag di ko tooñ ñu ko waaw góor gi yow waaw diw sam na dañu dégg nee na moom toog na ci seize xutbul maktoom bi toog na ci nangam nangam wax a wax dégg nga ca mandu ga xam nga lu leen doon mu ne ah Babacar de mënu koo wedde ndax yàllaa ko moom te ku ko neex la koy jox mm-hmm. ñi tekk ba mu jàg mu ne waaye nag mandarga yi bu ngeen demee ngeen seet bu nekkee ci moom ngeen xam ni toog na ci ñu ni tekk di ko dégg mu ne bu fekkee comme sama toogaay bii ma tooga ji yéen fii mën naa toog toogaay bu ni mel taalibeem di bëgg a loru ca doj ba ca gannaaw màkka mu xettali ko te ñi mu toogal yëguñ sax ni dem na fa ba dellu si bu boobaa nga xam ni nag wax dëgg yàlla toog na ca siis la mooy sëñ Babacar Si kooku mooy si bi ci des mooy nit ñi dañu foog ni alal yi indi ak yooyu Babacar ji su loolu de benn taalibeem dafa ñëw fii toog di jooy ndeysaan ah papa man de xam naa fee gëj waaye ndax day dëgg-dëgg léeg-léeg mu am téeméer rek waaye lu may ci boole bu ma ñëwee teg ko sa loxo mu ni pat continuer di waxtaan boo ko masaan wax nag sëñ ab nee na lu ko intéressé wul dafa naan pat du la wax boo ko masaan wax safaan it mu yónnee la kii ba nga kii bu ñuy waxtaan bu egsee booy wax mu ne déedéet déet yow solo yow noppil ndax fulla ja nee na bi xale bi jàmbatee loolu ndeysaan mu toog mu jàmm ne Babacar de ku am téeméer boobu téeméer jafe na man koo paase ñëw Tiwaawan ngay wut loo ca teg boo ñëwee teg ko ci loxo Babacar boo ko amee yàlla nag ma fàtte ba xaalis ba jeex. allahu akbar. mag ñi nag dañu menoon ni ni saaba yi menoon ci yonent bi su waxee lu ñu xamul dañ koy laaj ñu ko ah si waaw kii nga xam ni dafay ñaan yàlla bu ñëwee am kii da ngay ñaan kay xanaa mu yombal lu mu ñëw mu ne ko Babacar day Maodo ba muy dem dénku ma poosu taalibe yi. seen xol yi ma dénk nañ ko raxas ba mu set rek ñu ñëw ma jox leen ko ñu yóbbu dégg nga boobu bi may daaneele nag pour wax la qualité yi ma xam man sëñ Abdou jàngal ma ko mooy boo ñëwee sëñ Babacar di ñaan la nga indi bul foog ni lool lay teg ci sa loxo su gënul ci yow ci wàllu sëg dund doo ko am mais dana la jox lu ko dàq moom sëriñ bi ma la ci mën a misaal am na benn waay fii de ñoo ngi ci saal bi parce que dafa dem bay Cees la dëkkoon joxe may bu njëkkam dem bay bi mu bayee ba mbay ma sont muy wàcc ñëw si gaar bi ñu ni ko saxaar gi lay yóbbu Cees day dafa paar ma nga ca ngaay mu ji saxaar gu jógee Dakar wàcc ci gaar bi bi mu ñëwee mu ne ñii fuñ jëm ñu ni ñii day ay daayira leen dañuy seeti sëñ Babacar mu ne ah su ma àndee ñoom naagu ko a ah, ànd ci rek mu ànd ci yàlla yombalal ko mu ñëw toog ci bi mu toogee góor gi wàcc di waxtaan ak daayira ba ñu waxtaanee ba waxtu yu jot Baye Ali Fatim Mbuub ne ah góor gi nag nee na weewu gar dëgg na weewu janaab ñu tàllal mu ñaan ngeen dem yeesali su ko defee ñu waajal waxtu yi waa ji tàllal dugal ci yéeneem ngoraga la ca dugal ni yàlla na sotteeg jàmm mu am ci doomi barkeel ba mu demee Thiès xarit bi jël ko ñu dem joxe seeni ganaar ci biir reer bi rek mu pes ndaw si moom waa ji teel ndaw si yuuxu yaay ji ñëw kër kër kër ñu ni waaw la lan la moo ma pes moom ma def ni yaay ji ni ko yow kay moom jeex na yow amatoo jabar yow sa may gu njëkk xale bi ni ko deet kaay ñun joxew ñoon may gu njëkk bu subaa maa ngi ñëw réglé ko nañ dem rek xëcc ko ñu génn kër gi dem moom ma dem tëdd néegam rek mu mel ne dañ ko ne boo xëyee dellul ci waawoon mu xëy ñu koy wër Thiès mu ñëw suba teel ñëw fii ci bu kër digg kër gi taseeg benn mag mag bi ni ko waa yow góor gi looy wut fi mu ne ko góor gi laa mu ne ah, teel na di góor gi wàccegul di mu ne waaw baax na ma xaar ko bi mu toogee ni suuti mag ñi ñëw ñëw bi saal bi ñu commencé dugg mu dugg toog fam mu toogaatoon toog rek góor gi wàcc ak sañse baag ba ne carré baag yëpp toog ñu ñu nuyoo ba ñu nuyoo ñu waxtaan di waxtaan ba waxtu jot mu tàllal wax la mu waxoon pour gàttal mu ni lawet nag jóg ni bàyyi alifati mbu waaw ma ni góor gi dama laaj pour nga laajal ma góor gi ndax man nitu yàlla mel ni moom ñu yaakaar ko mën nañ cee dugal suñu yéene te yéene ji du sotti Baye Aliou Fatim di ko ah, du du teew ñuy nataal borom jotaay baa ngi nii laaj ko ko waxul woon dara góor gi de daa dugaloon yéenam dem sëñ Babacar ni dënn bu mu jàgg mu sigi xool ko ni aha dafa mel ni nag boo joxee samay gu njëkk Cees dem bayi ba sa mbay sont nga ñëw war a ñibbi ñu ne la saxaar gi dafa paan cangaay nga gis ñuy wàcc di ay daayira nga ànd ci ñëw ci këru nit yàlla nga ñuy ziar nga toog muy ñaan nga dugal ci sa ni yal na ngoro gi sotteeg jàmm yal naa ci am doom yu barkeel waaw bu fekkee nit yàlla ki bi mu tallee la loxoom war laa ñaanal yàlla mu jàppale la ci loolu xam na ni yow ndaw si du sa ndaw boo ko takkee balaa ayu bis nga faatu waa ji dafa ni xelank la ilaha illallah muhammad rasulullah waa ji dafa ni xelank laa la wax ma ni loolu xol attanu ko yutu déedéet waxul dara sëñ Babacar wax na fi mu jaar ba wax ko gaar bi mu ñëwee saxaar gi paat fekkee lépp kooku mooy sëñ Babacar radiyallahu taala dafa tolluwul fenn foo naan fii tey nekku fii naa wut lii naa wut lee déedéet tolluwul ci itam nga ni a ah, li ma ko defal ba gis sa bopp maa ngi dégg sëñ Moustapha di wax bët démb rek di wax naan lépp terexe bi li nga xam ne moom mooy charte bi pire mooy lépp loo ciy def doo ci gis sa bopp boo ci hmm. gis sa bopp pare ñàkk nga ko sëñ Babacar nag dafa mel ni bi mu bi mu bi ginnaaw la gën a foor waaw li tax bi mu wanee gannaaw ci la gën a di weddu su weddu ngoor ak dem asali ci yow ma jumaat yi su ma ci bëggee boole wu dépense leneen dama ci teg day jafe ci dëgg la bu ma yëpp daf yàlla da ko ko teg lépp buy fay nag di fay rek keneen wax na ci nekk ne ko kii di sëriñ nee na ko bi sama génnee àddina ñu war a def mag ñi di waxtaan ku nekk di seet ku ñu seet dama def sama tawasul dem tëdd sama nekk nee na dafa tëdd rek gis benn picc ci biir géej nee na géej gi fu mu dàmbalee fu mu yem xamul laaf yi rëy rëy goo xam ne xamul lu mu toll nee bi mu jëlee ñaari laaf yi dóor ko ci biir ndox mi nee na fu nekk kar ñeenti ndox mi nekk na waaye nag bi mu xoolee gis na bone kaare seen ndox booba góor gaa ngi koy góor Moussa Niass nee na ma ne su ma yeewoo damay sol sama yu rafet naan sama café nekk di ko gën ci biir jaayante nee na bu mu ñëwee di dugg ci kër góor gi Moussa Niang fekk na góor gaa ngi toog ci diiwaan bi jàkkaarloog perron ay mag a ngi toog alaaji bu yo nee na dama tey sama tànk ci perron bi bay tolloog ANCAR bi rek sëñ Babacar Sy gi xool ma rek ni bokk na ci ñàkk fayda loolu gént guddi boo yeewoon na tamit laa ilaaha illallaah waaw nee na ma ni man lay dànkaaf ñëw rek sukk ci kanam ne ko si damay jaayante mu ne ah dëgg la si yow ma ne ko ah, tànk bu ñu ko toppee du ñu fi ci nekk dafa bari xajul. ci cin li. te a dem noddi ci tisbaar. Ah. góor gi kon nag ñuy maye beneen sens ñu ñaar fi ñu àggale sa bopp. bokk yi noonu. li bu waay dugal ci biir yàlla ko yàlla faj. incha allah waaw ci barke yonent bi yéen ñi nekk Amérique Asie États-Unis fu waay ne ci àddina rek dugalal sa yéene ci waxtaan bi yàlla mën na ko faj. da koy faj jërëjëf ko. bii laay bat maa ngi lay sant bu baax. jërëjëf tabaraka